2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 88 cas contacts suivis par nos services, 2 cas à partir de l'aéroport international Blaise Diagne de 9 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 1, Pikine 1, Benetali 1, Yoff 1, HLM 5 1, Cambérène 1, et Colobane tous les cas communautaires aujourd'hui sont à Dakar. patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.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 bi ñu dellu see ànd ak nañoo doomu jàngoro ji ñooñu nag ñu ngi toll si juróom-ñett fukk ak juróom yi nga xamante ne moom la ñuy wax contact moom la suñu service yi bërëbu liggéeykaay yi di topp ak di saytu am na ñaari cas yi nga xamante ne importé nañ ko mooy dañu ko jéggaani mu ñëw fii ñu ngi jàllee aéroport international Blaise bu Diass juróom-ñeenti cas am nañ ko moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi tëdd tey ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Pikine am na benn benn Tali am na benn Yoff am na benn HLM cinq am na benn Cambérène am na benn Kër Massar am na benn Fass am na benn Colobane am na benn ñu wax ne ñoo ñëpp cas communautaire yi ñu am tey yëpp ñu ngi teewlu fii ci diwaanu Ndakaaru téeméer ak fukk ak benn ci ñi nga xamante ne feebar nañ bi ñu leen seytuwee seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak ñeenti cas nag ñu ngi tëdd si suñu euh, bërëbu sawetaas yi moom la wax service de réanimation ci l'hôpital yi ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi feebar ci tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan dalee ko 2 mars moo fàttali ne mooy bi nga xam ne mbas mi Covid 19 dugg na Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar. jumtukaay yi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñu ngi am ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nga xamante ne amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñeent fukk ak juróom làkku nañu génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne ñoo toll toog tëdd léegi hôpital ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett.